أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين بوك ني توب ني باي خال ني لا ني دي لن شار با دا ني دي لن ام ام صلو تي كو خا ني دا فا ام اي جيفا جيفا وال ورشا كو يتام ام اك تاجو بو ديفه لي ني واخ ان شاء الله سن باب نكو دي ديفال توفيق تي كاتون يالا دا ني تيال ني نيو لن جي استعمال بي اي بند جوروم نياري فاتحه فاتحه ني جوك بند جوروم نياري sharhu sharx juróom-ñaari yoon suratu tiini juróom-ñaari yoon suratul qadri juróom-ñaari yoon suratu xuraysh juróom-ñaari yoon suratu nashri juróom-ñaari yoon suratul ixlaas juróom-ñaari yoon ak fasawfa yu'azabu hisaban yasira fasawfa yu'azabu hisaban yasira nga bind ko quatorze fois adad wahab pare nga doog a see toftal xawaatim bi xawaatim marabaa bii nag moom koy bind bi nga xam ne ñu ngi ko teggee ci inna ma'al usri yusran